ñu nar a xaar li nga xamante ne moo di euh, résultat moom moom maître Ousseynou dafa jàpp ni ki la di juge Sabassy Faye en tout cas euh, L 41 bi nga xam ni daf ko daal di évoqué article L 41 euh, bi loole dafa violé la loi parce que dafa jàpp ni loole amul lenn lu mu laale ci fee parce que moom li mu xam ne rek mooy que ni en tout cas ñaari ñaari ñaari mbir moom moo moom moo am ci moom moo am ci fi am na am na ku ñëw am na ku ñëw montre si rek clé d'or Euh, maître Ciré Clédor Ly lañ ñu wax nii moom moo moom moo daal di ñëw noonu en tout cas. mu mi euh, ngi noonu en tout cas moom maître Ciré Clédor Ly kon bokk ci avocat yi Ousmane Sonko yi moom euh, moom daal di nay ñëw moom aussi tamit défendre si ki nga xam ni moom moo di son client di Ousmane Sonko comme ni ngeen ko gisee noonu rek en tout yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy bàyyi xel audience bi la nekk na audience boo xamante ni si en tout cas ñoom gis nga ñu jël ko ñu jël ko commenté ko. ay jeunes. ñu ko commenté mhm. ne mhm. suñ ko mënee xool rek ki nga xamante ne moo tur euh, maître Ciré Clédor donc euh, voilà Aïcha Wali. voilà donc euh, mu ngi noonu l' avocat maître Ciré Clédor euh, mu ngi noonu euh, génn fi nga xam rek moom mooy moom mooy si biir voilà. ba nga xam ni décision bi nga xam ni kon mujjee la la CEDEAO kon ñoom nag en tout cas wala moom maître Ciré Clédor li ñëw na daal di rejoindre ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naataangoom fii nga xam ni moom moo di ci cour suprême de Dakar effectivement pour daal di défendre ki nga xam ni ni euh, moom moo di Ousmane Sonko bi nga xam ni jamono ji ñuy waxe ak yéen euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, avocat yu état du Sénégal ñoom ñoo yore li nga xam ne ñoom ñoo di la parole Euh, pour euh, plaider actuellement pour le moment euh, la nga xam ni nag en tout cas kenn ci ñoom mu ngi koy wax jamono ji nii mooy que ni ki nga xam ni en tout cas moom moo di saba si fay amul en tout cas compétence yi pour daal di mën a wax ndax dañuy dugal ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko waaw wala parce que la mu ca xamal rek la mu ca wax rek mooy que ni boobelee tribunal de soor kenn waru ko woon a saisir ndax amul qualité yi en tout cas mu doon loo xamante ni si ni mu ngi xaar réponse tontu bi. ci avocat yi Ousmane Sonko ba xam ñoom aussi tamit lan la ñuy teg en même temps mi nga xam le ni euh, L41 bi nga xam ni euh, juge bi daf ko daal di évoqué loolee nag amul lenn lu mu laale ak fee yi nga xam ne en tout cas moom moo ci daal di am loolee kon euh, mi ngi noonu mbokki internautes yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel ba tey fii en direct nga xam ni moom moo di cour suprême de Dakar gis ngeen noonu ñu leen doon jëlal en tout cas dikkub ki nga xam ni moom moo di maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yu Ousmane Sonko yi nga xam ni dañu ñëw pour daal koy défendre. D'accord que maître Ciré Clédor aussi génn euh, lan la mën a jàngat. waaw euh, a muy wane rek mooy que ni ñoom en tout euh, li nga xam ni wala. Euh, maanaam enjeu yi nga xam ni wala kon euh, ni nga xam ni respecté nañu ko euh, bi la audience parce que tey dama jàpp ni déjà bu ñu nee avocat Ousmane Sonko maître Bamba Cissé mi ngi fi maître Cheikh Khoureyssi Ba ñooñu rek war nañu mën a doy mais tey ñoom bu ñu aussi bu ñu dikkee en tout cas dolli ko ci bàyyi lépp lu ñu doon def pour ñëw défendre Ousmane Sonko ça veut dire que ñoom xam nañu ban dossier en tout cas wala xam nañu audience bi tey jii lan la leen mën a jural tey jii ci ñoom ñu gagné ko parce que dafa nekk audience boo xam ni waali tey jii waxuma Ousmane Sonko mais ñoom sax bu ñu ko gañee itam ci seen carrière dina euh, nekk loo xam ni dina am solo trop trop ci ñoom comme euh, ñu bare bare ni ñu ko bëggee en tout cas ci ñoo ñenn ñenn ci ñoom kon yaakaar naa que ni même Juan Branco sax ci boppam bëggoon na ñëw assister assister ko mais gis nañu euh, au final en tout cas empêchement bi nga xam ni am na ko ba moom moo ko ba moom moo ko tere ñëw sànq sax moom moo ñu jox xibaar yi nga xam ni moom moo bàyyi ko foofu léegi ca cour de de la CEDEAO kon yaakaar naa que ni bésu tey bi bés bu ama am solo la. Euh, tey jii daanaka euh, bu ñu sukkandikoo si li jot a génn mooy daan na Ousmane Sonko. di euh, ànd état du Sénégal ci dissoudre bi nga xam ni daan na koy dissoudre le parti Pastef mais lu jëm ci radiation bi waxu ci. waxu ci voilà kon loolu yaakaar naa que ni mooy que ni rek le parti Pastef comme nañ ko doon waxee ñenn ñi doon am yaakaar xëy na mu dekkiwaat pour le moment kon mënees na jàpp ni parti bi kon nañ ko tase woon moom mooy wéy di bu ñu sukkandikoo en tout cas ci dogal xam ni tey ji CEDEAO jëloon na ko te ñoom avocat Ousmane Sonko jëloon mbir mi yóbbu ko fa kon loolee lañ ci euh, mën a jàpp pour le moment tey 17 bi nekk euh, bés bu am solo ci wàllu justice euh, tey jii fii ci Sénégal. d'accord comme ni nga ko waxee en tout cas Kébé wax ci nag analyse yi mu nekk ay analyse yu am am solo déjà li nga xamante rek moom moo di depuis ce matin nag ñi doon xaarandi par rapport ak la moo war a nekk dogalu justice bu CEDEAO parce que nag il bëgg a intégré waat Ousmane Sonko ci liste électorale yi mais aussi dissolution du parti Pastef loolu aussi avocat Ousmane Sonko yi euh, ñu ngi ko doon plaider euh, fële sa euh, cour justice bu CEDEAO mais tey dogal bi nga xamante ni gis nañ ko mooy CEDEAO dafa rek d'accord ci dissolution bi nga xamante ni état bu Sénégal dissoudre woon na ko parti bi di Pastef mu daal di desandi nag li nga xamante ni wax nga ko moom moo di ndax Sonko dinañ ko dugalaat ci biir fichier électoral bi ñu mel di Pape Moussa Sow nee na euh, Sonko tey buñ ko buñ ko buñ ko raje woon euh, si liste électorale yi dootul mën a bokk si élection ba faw euh, dootul mën a voté tamit ba faw loolu aussi yaakaar naa ne dina nekk mbir moo xamante ni dina diis lool waaye aussi dina métti lool si kii di Ousmane Sonko parce que boo xoolee taxawaay bi nga xamante ni tey jii ñi nekk Pastef ak aussi ñi topp si am ku si nekk am yaakaar dem na ba sax ñoom nanguñ prononcé wu si ay plan B ak ni ni mel parce que jàpp nañ ne seen seul et unique candidat moom mooy moom mooy kii di Ousmane Sonko yaakaar naa ne xamaguñ tey fan la dëgg bi mën a féetee fii si Cour suprême parce que euh, coow ak pëccëxoo am na si biir euh, bu ñu demee ba gis représentant bu euh, direction générale des élections ñëw tey si Cour suprême te ñoom ñoo fi teewal lii di ministère de l' intérieur ñoom tamit am nañ fi wàll dem nañ ba gis benn avocat bu Ousmane Sonko sax moom la mu jàpp mooy waa DGE amuñu palace fii nga xam te rek moom mooy si de si Cour suprême ndax jàpp na ne peut-être am na lu louche mbir mi xëy na seen xel ñaaw na si daal li waral DGE teew mais comme li lii ni mel daal ku nekk rek mu ngi taxaw di xaar euh, lu ñu def lu dul xaar man li ma xaw a jaaxal mooy euh, tey ci la ci la Clédor bokk si avocat yi nga xamante ni tey heure bi war na ko fekk tey si biir salle bi mu génn si biir ndax audience bi dañ ko suspendre wala dossier bi wala kii bi comment dirais je euh, plaidoirie yi aussi fan la tool ak ni mel loolu aussi c' est des questions yoo xamante ni sénégalais yi waxtu wi ñu ngi toog di xaar euh, yëf fan la tool ak fan lay mujjee aussi. effectivement comme ni nga ko waxee rek tey jii nii sénégalais yi en tout cas ñoom ñëpp ñu ngi connecté ñi takk seen ay casque pour déglu euh, lan mooy tukkee fii la nga xam ne moom moo di ci cour suprême de Dakar ak ci mënti am mooy que ni jamono ji nii mais laata loolu parce que foofu la jëkkuur. Euh, fële ca CEDEAO Wally parce que boo xoolee état du Sénégal est nekkul ni ci sama gis-gis. waaw njëkk nañu jox dëgg Ousmane Sonko parce que moom bu ñu sukkandiku ci ay daafe bi nga xam ni moom moo ni. Euh, madame ay Aïssata saal Sall moom moo ni ko ñoom amuñu obligation wu euh, appliquer décision yi nga xam ne moom mooy tukkee foofu lay ca nga xam ne moo dee CEDEAO est-ce que tey waa parti Pastef ñoom aussi tamit duñu ne euh, ñoom duñu duñu xëy na appliquer dogal gi nga xam ni moom la waa CEDEAO jël loolu aussi tamit laaj la boo xam ni rek dafa daal di sampe parce que tey ñoom ñoo ko njëkk ñoom ñoo ko njëkk a évoqué kon yaakaar naa que ni ci côté boobu noonu Waly mën na fi am problème beneen bi ci des mooy que fi li nga xam ni moom moo di uh, ci cour uh, fi nga xam ni moom moo di ci cour suprême de Dakar fi nga xam ne en tout cas euh, moom mooy bi nga ko waxee tey mu nekk loo xamante ni si ni ci euh, ñu fi attee ne Ousmane Sonko di bokk ilaa yow mi din abat du mën a bokkati ci élection euh, dina dina mais avant goût bi gis nañu que ne CEDEAO ñoom nanguwuñu wax ci radiation bi en tout cas ci moment bi nga xam ni ñi ngi xaar jàpp nga ne aussi tey dinañ tranché wala dinañ délibéré par rapport si wàllum radiation bi parce que ñëpp ngi doon xaar évidemment ñu ñu def ko benn yoon ak yooyu noonu tamit bi ñu ñëwee deuxième partie bi lañ def waaw xam nga fi ne nii dañu war a lëtt Sénégal wala ñu fir leen parce que boo xoolee tey euh, man yaakaar naa que ni amatuñu Mimi Touré wala Mimi Touré merci moo nekk noonu di dugg Euh, alors, euh, si euh, du Cour suprême. voilà. voilà euh, mi ngi noonu dugg si na fekk si euh, Déthié Fall bi nga xam ne aussi tamit. dugg si léegi la jaar nekk candidat. Mm. Euh, kon mu mel ni que li ñu gis rek mooy que ni tey leader yu bare bari ñëw nañu vraiment pour assister ci audience bi parce que comme ni ñu gisee ñenn wax ko ci ñoom mooy que ni mbir mi dafa dépassé la personne de Ousmane Sonko mais tey démocratie wu Sénégal ci boppam la ñëw